caporal Ousseynou Fall corps des conseils bisu conseil municipal yi lan bis boo xamante ne ni collectif la boo xamante ni mu ngi juddoo Dakar sunu kilifa yi toog muy mopp nañ bureau bi tey coordination bi yàlla def na ni man caporal Ousseynou Fall la yàlla def ma jiite coordination bi waaye taxul aussi tamit ma ëpp fi njàng kenn wala ma gën fi kenn wala ma gën fee xeexal Sénégal kenn jàpp naa ni dañoo am yaakaar ci man ak gëm-gëm moo tax ñu def ma dans l'unanimité ne ma yaay coordinateur bi je suis le coordinateur mais je pas éternel ma ne may coordinateur bi mais du may wéy di nekk coordinateur chaque jour su ma demee ba ñi ma faloon coordinateur gis ni Ousseynou Fall mii li ñu ko fal mënu ko def dañuy wootaat assemblée générale comme nii tegg ma teg ma fële jël keneen ko mën a doxal kon may ñaan tamit ñi nga xamante ni mooy le bureau de la coordination ñi nga ne tabb na leen tey ñoo xam ne ñoo ngi nii ñoo wër tabb na leen tey jox la ay post de responsabilité nañ xam ne poste de responsabilité yooyu ñuy jox c'est pour ñu liggéeyal askan wi la poste de yooyu ñu jox c'est pour ñu mën a fexe xeex ba li conseil municipal yi war a am ñu am ko kon jàpp naa ni samp nañ bureau bi tey bureau bi nag lu tax ñu samp ko c'est pour ñu gën a défendre les intérêts intérêts yi nga xamante ni conseil municipal am nañ ko parce que mun tey mënu ma concevoir tey man nga nekk un conseil municipal quartier bi nga dëkk sax xamuñu ne yow yaay conseil municipal bi pourtant tu es un élu de la république ay suffrage u ñoo la fal tu n'es pas nommé tu n'es tu n'es ni ministre ni DG bañ nommé la yow conseil nga élection lañ jëm askan wi fal la pour cinq ans ñu jàpp ni conseiller boobu nga xam te ne askan fal nañ ko ci décret bi nga xamante ni ministre bi weesu Modou Diagne Fada ñu koy remercier de passage am na lu mu defal conseil dix mille francs la ñu jox session bu ne ñun conseil municipal dix mille francs la ñu jox session bu ne ci année bi ñetti session wala ñaari session wala juróomi session nga ci am kon ça te fait cinquante mille francs dans l'année moment où on a ñu wax ne amuñu benn problème ak adjoint ak les ñoom dañoo xeex ba am seen ay droit ki toogoon fii sànq muy monsieur le maire Maguette Sarr moo nekkoon modérateur bi dafa am empêchement léegi fu muy jaale ji moo tax mu dem Mëgëy Sarr bi mu toogee bi mu doon xeex statut des adjoints au maire en ce moom adjoint au maire la woon mais yàlla def na biir bi retombées yi am ñu jox leen attribuer leen des indemnités de deux cent mille francs selon les communes moom léegi conseiller municipal la kon xeex ba mu doon xeex démb xeex ko woon pour moom da koo xeexoon pour tous les élus locaux parce que tey mën a nekk adjoint soo nekk adjoint dem nekk conseil municipal kon tey ñun li ñuy xeex pour ñu revaloriser ñu xoolaat ñu suñu statut ndax ñun ay conseil municipal lan statut conseil municipal jàpp naa ni moo ëpp doole sa statut chef de quartier te les chefs de quartier jàpp naa ni ñoom am nañ sax am nañ indemnité ñoom dañoo def bi ñu waxtaanee ñu xool ni ñu ni ni ni adjoint maire yi di di di di di di commune bi di leen di leen jox ay indemnité adjoint au maire bu ci nekk deux millions deux cent mille francs deux millions quatre cent ngay dikkee commune par at adjoint maire bu ci nekk deux millions quatre cent ngay dikkee commune par at deux cent mille fois douze maire bu ci nekk dix huit millions lay dikkee commune par at ñun nag conseil bu ci nekk cinquante mille francs ngay dikkee commune par at loolu la ne du yoon du dëgg te du yoon pour mën a jëlee un conseil départemental jox ko indemnité de cinquante mille francs war nañ fa jëlee adjoint conseil municipal yi jox leen ay de session cinquante mille wala ou plus ou plus parce que ñun conseil municipal yi ñoo tax mairie di mën a dérouler ñun nous sommes l'organe délibérant ñoom mairie ñoom ñooy organe exécutif ñoom ñooy appliqué ñun li ñun tey conseil municipal nous sommes vingt neuf mille ci Sénégal suñu bankoon suñuy loxo amul benn maire benn mairie buy mën a dem parce que ñun suñu bakkee suñu loxo amul benn budget bu ñuy voté bëgguñoo àgg foofu nag parce que nous sommes tous des patriotes te dañ ne réew mi léegi jub ak jubal ak ban ak jubbanti dañoo bëgg balaa ñuy jubbanti dara ñu jubbanti injustice boobu am ci ci conseil municipal yi dañoo bëgg balaa ñuy jubbanti dara ñu xam conseil municipal exemple je donne exemple conseil municipal ba nekk ca Notto wala ca Pout wala ca Diender wala ca Fass commune Fass booy wala ca ca commune Misra Sirimana wala ca commune Xosanto wala ca commune Sabodola wala ca commune Paskuto wala ci commune yi gën a reculé ci Sénégal conseil municipal bi nekk session wala mu ñàkk ñàkk nekk session bu feebaree mairie bi moo ko war a jël en compte mairie bee ko war a faj ba mu wér ndax député bu feebaree assemblée national moo koy jël en compte moo koy faj ba mu wér seen ay doom bu ñu feebaree état moo leen di faj ba mu wér. muy ministre di keneen kon ñun conseil municipal li ñu laaj waxuñu ñun na maire bi faj suñuy doom waxuñu na maire bi faj suñuy jabar mais dañ ne ñun conseiller bu ñu feebaree wala wax dëgg neex yàlla maire bi war nañu jël en charge faj ñu ba ñu wér y a beaucoup de conseils municipaux yu ñàkk seen bàkkan c'est parce que dañu amoon ay jafe-jafe pour mën a faju loolu lañ bëgg loolu lañu bëgg aussi aussi mu dakk te jàpp nañ ni jàpp nañ dina faju leneen li leneen li mooy statut conseil municipal pour ñu revaloriser ko ndax tey y les anciens qui son la monsieur le maire vous avez fait 23 ans de service yàgg nga dem daane ànd ak ay délégation dem bitim réew mais boo demee bitim réew Mali gii rek bu fa conseil municipal bu Sénégal demee bu egsee nu ñu koy waxee fi ñuy jaarale président. tapis rouge tapis ak salon d'honneur la ñuy jaarale le conseil municipal Bamba maa ngi lay nuyu. tapis rouge ak salon d'honneur la ñuy jaarale le conseil municipal mais ñun Sénégal fii. xamuñu sax la mooy statut conseil mais kon ñu bëgg ñu revaloriser le statut du conseil municipal ñu xam ñu ay élus locaux lañ suñu carte suñu pièces yi ñuy jox carte conseil municipal yi ñuy jox yii mënu sax dugg stade boo demee stade ñu téye la mënul dugg hôpital boo demee hôpital ñu téye la te bu député bi ñëwee ñu bàyyi ko mu dugg su maire bi ñëwee ñu bàyyi ko mu dugg fu président de la république taxaw conseil bi dafa war a taxaw parce que il est élu ils sont au kon ñun loolu la ñuy xeex dañu bëgg ñu jox ñu suñu àq ak suñu yelleef xeexuñoo kenn xuloowuñoo kenn waxuñoo kenn lu ñaaw mais dañu comme na ñoom amoon nañu idée defar jox ñu prime d'indemnité dix mille te boobu moo foo dem yaa amal gàmm ba ñu jox ah je je pense bien ba ñu koy jox ñun teewuñu waxtaanuñu ak ñun bu ñu waxtaanuñu ak ñun kenn du ñu jox dix mille bu ñu waxtaanuñu ak ñun dinañ jox cinquante mille kon tey duñu toog fii di wax ay indemnité dañoo bëgg lu mu gën a gaawee ñoom ñu réfléchir par euh, euh, avec le ministre bi yor collectivité territoriale Fafana jàpp naa ne bu fekkee dañoo bëgg jubanti Sénégal rek war nañ koo commencé ci biir ci conseiller conseillers municipaux yi leneen li ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi média bi